loolu mbax mi ngi nii toog mu wëlbatiku mu wëlbatiku parce que yenn saa yi nit day tëdd ñu def ko ci ay nelaw la mu dégg mu féetale ko boppam fekk dégg bi daa am feneen fu mu jëm bu mu nee maka Ndakaaru dafa mokk du mbax ci mbokkal Ndakaaru la ñu mu wëlbatiku ne c'est pas un marabout c'est Dieu te moom mooy wër ci marabout yi pour ñu lijjantil ko yoonam pour bu ñëw toog waa ji toog kon c'est pas des maam c'est Dieu fii fi mu toog yàllaa ko fi yaa ngi dégg loolu rek moo doon li nga xamante ni foo mu mottali ko ci li am fii biir Sénégal muy amal góor soosu ne ko xoolal fii lépp bokk na lu dinañ sant ñu ñëwaat mais balaa ñuy avancé dañuy nuyu ñi nga xam ne dañ ci ñëw teewal bi ñëw ci bés bi nekkal ñun te Sénégalais yi naw leen nekk bu baax parce que defe naa ne bokk na ci ñi nga xam ne bi ñëpp ne teg donc dañoo continuer di éveiller dañu continuer di am fi mu wax ak askan amoon na jamono boo xam ne terrorisme intellectuel amoon na fi ba képp ku nekk ci ñun sax boo amee xalaat ci réew doo ko sañ a sosal te doo ko sañ a wax ñooñu nag dañuy leen di tàccu leen ay politiciens bu defalee standing ovation parce que dañoo far ci dëkk te jamono ci far ci dëkk jafe dañu far ci askan bi ci jamono ba far ci askan bi jafe ndax li ñuy wax tey dinañ ko wax ci kanam bis bu nit ñi demee ba rendre compte ni que li nga xam ne def nañ ñu koy ooyee ak ki nga xam ne mooy am nañ mooy ñu ngi indi taal bi ñu ngi leen taal ba pare ñu ngi leen. ba du ko def te yéen ñëpp xam ngeen ni Sénégal am na ñoo xam ne dañ leen endoctriné ba boo waxee lu nekkul lu jëm ci ñoom seen gis-gis bokkul dañ nañu jël sa bakkan dañ nañu dal sa kaw dañ nañ dal sa kaw alal dañ nañ dal sa kaw xam ni que politique nekkul leneen lu dul travailler pour le développement de sa cité te képp koo xam ne yaa ngi liggéey pour sa développement cité yaa ngi liggéey sa réew yaa ngi jaamu yàlla kon Ameth bu lay dalal may nga wax merci beaucoup Adjaratou Ngoné maa ngi nuyu ndaanaan yi kilifa yi góor yi nit yu baax yi ñi jar a topp ñi jar a wóolu ñi dafa am loo xam ne sànq dégg naa l'honorable parti bi wax ko loolu rek doy na mooy ay nit yoo xam ne doo dem ci rapport fekk bu seen ay nit yoo xam ne doo dem fi nga xamante ne ñi naan réew mi tey ba leen jóge mu nekk seen domaine muy impôt et fekk fa am suuf soo leen seet dem fekk fa seen tur ñii kenn ne xool kenn ne kenn du ñoo jar a wóor ñii ñoo jar a àndal ñii ñoo jar a doyloo ñii ñoo di ko ñii ñoo di sàmm seen kàddu ñoom ñoo war a sauver Sénégal merci maa ngi leen di nuyu di nuyu sama bopp di nuyu moom di ñaanal ñëpp jàmm di sant ñëpp di ci ñaanal man ak mbooloo bi ñu ko boobu boobu séeréer bi la jaaxal benn mbooloo rek mooy séeréer jaaxal na day sàmm ndox man suñu sëw soo ko ñu àndal parce que man nag wax dëgg yàlla benn yoon damay naan dañu ma sàmm la nag ma benn projet boo xam ne nag ngeen gaal ñoo ko bind léegi ñu ne ñu tuddee par kàddu gi sagal ñu koy jaay waaye ñu xamu ko bu may am ñu xaw ma sans cadeau boo xam ne suñu bopp lu bëgg nga sax di takku gàtt yéen waa Dakar la yoo xam gis naa Abbas mu ne mooy borom Dakar bi ñu demee Dakar su ma ñëwee cinquante milliards yu nekk Abbas Fall nga def ci keesu espagnol yi la jëm bu ngeen ko déggee ñu ne Dakar wax leen sax ci may ko ne néew ko bii bi mu nee waa Dakar wóoru leen ma daf leen tegal programme tuddee ko Dakar bi bokk ñu ne ko bokk ci laaj mu ne bokk ko defar bokk ko xalaat bokk ci jëf bokk ci tabax bokk koo doxal boobu ba tey ñu doxal Dakar ànd ceeg waa Dakar li dëkk ci gis na commune Dakar bi ñu ko dénkee Dakar ci may bëgg dugal tey meilleur protocole yi nga xam ne ñoo àndandoo bokk làkk bi ñuy làkk bu dee làkk bi nasaraan day songoo jàppale ci ngay bëgg a introduire ginnaaw bi ñu ko dénkee Dakar maire yi nga xam ne ñoo fekk les grandes métropoles muy cent cinquante mille dañ ko wóolu def ko seen président ci ma bëgg dugal ginnaaw bi ñu ko dénkee Dakar le Fonds mondial du développement des villes nga xam ne ñoom ñooy toog di saytu di dajale di alalu fii di ko jëriñ fii dañ ko def vice président. wala day wax naan boo bëggee xam nit da ngay dem ci ay mbokk. ñu ne ñun Sénégal ñoo xam bàtt ñoo doyloo bàtt waaye petit réew xam nañu bàtt doyloo bàtt. ñu nekk ñu ñëw kenn ëppale ñu ci bàtt. moo tax ñu ko Ndakaaru teg ko ci bopp coalition bi wax ni nga amatul lu muy prouvé Dakar moo tax Dakar bu bàyyi ko ki nga xam ne mooy Babacar Mbaye yaatal gis-gisam jëmale ko ci Sénégal am yéeneen jëmale ko ci askanu Sénégal bi kooku may bëgg tey introduire muy Barthélémy Tooy Dias

mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen di seen waay ak seen wàccuwaay